bi jaahi sayyidu wujud sallallahu alayhi wa sallam suñu way dawli yal na leen yàlla yërëm waaye taal ñu ci seen barke tënk ñu ci ak njub ba kere ñu leen di fekk itte yeeg way aajo yi way feebari si opitaal yi ñi koy wéyaale yàlla saafara ñu saafara leen way tukki yi si géej géeg jéeri jéeg jaww ji am na yàlla delloo si leen ak jàmm ci seen jaboot ci daraja yenent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu ngi nuyu ñëpp auditeur auditrice bàyyiwuñu kenn fa tabaarakallah di leen ñaanal yàlla lañu bëgg yàlla xam na yàlla na leen ko yàlla defal di jaay saydu wujud sallallahu aleyhi wasallam waaye jiital ci nuyoo bi ak ziyaaraat ci kilifa kër gi di Cerno du Bane ñu ngi koy ñaanal yàlla ci taxawaay yal na yàlla yokk ci daraja yeneen bi aleyhi salaatu wassalaam waaye ñi nga xamante ni ñoom lay àndal ba ñi àddu ngeen di jàkkaarloog ñun ci Safina TV ñu ngi leen di ñaanal yàlla taxawaay yal na leen yàlla yokk taxaw bi jaay seeni wujud ba kenn ku ci nekk rek li nga bëgg nisar ko yàlla na la ko yàlla defal ci daraja yeneent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye jiital ci Sëriñ Sàmba Si ak ñi nga xamante ne ñoom la ko bokk nekkal ñi ci bay waar guddi ak bëccëg fa tabaarakallaahu yal leen yàlla yokk bi jaahi seydi wujud sallallahu alayhi wa waaye itam noonu la ñuy ziyaara sëriñ Papaloo ca France fa tabarakallahu ak rakkam jooju di sëriñ Maodo Lo sëriñ Moustapha Gange moom itam ca France ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare sëriñ Lamine moom itam ñu ngi leen di ziyaara di leen ñaanal yàlla yal na leen yàlla delloo si jàmm ak salaam El Hadji Abdul Aziz si Arabie Saoudi ñu ngi koy nuyu moo it di ko ziyaara Mouhamadou njaay Gabon Mouhamadou Ndiaye Niger ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla yal na leen yàlla tënk ci ak njub ba kere ñi dellu siwaat ak jàmm ci njaboot gi yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na leen ko yàlla defal Mouhamadou Ndiaye Allemagne moom it ñu ngi koy nuyu ak rakkam ju baax jooju di Alxasan njaay ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokk zahiran wa baatinan ci daraje yonent bi alayhi wasalaatu wasalaam waaye tam noonu la ñuy wàccaat si ba ci réew mi di nuyu suñu mbokk mu baax Serigne Babacar Jaxaam ca amoo 5 ak soxnaam di soxna Faatu Ndaw ak njaboot geek ñëpp soxna Faama Njaay ak borom këram di Ibrahima Mbay ñu ngi koy ziyaara waaye itam ak soxna Ami caw ak borom këram soxna meer Fall Khady Fall ak borom këram ñu ngi leen di ziyaara fa tabaarakallaahu Adja Ndey ci amoo siis ñu ngi koy ziyaara di ko ñaanal yàlla ak borom këram yàlla na yàlla fëgg bopp bi bi jaay seedi wujud sallallahu alayhi wa sallam oustaz Abdallahi Ndiaye ca Sam moom itam ñu koy ziyaara di ko tatagal di ko ñaanal yàlla moom itam yàlla na yàlla bopp bi di jaay seedi wujud sallallahu alayhi wa sallam wuñu kenn fa tabaarakallah seen émission at tazkira fas yéene ñëwaat àndaat ak yéen ci ginnaaw bi ñu jógee ci jaamu yàlla gu màgg goo xamante ni eh, ponk la woon ci ponk islaam yi di juróom ñu ko doon tuddee sahru ramadaanal mubaarak di weeru koor wi nga xamante ni tàmbali woon nañ ko ci bismillahi rahmaani waaye tam àggal ko ci ak alhamdulillahi rabbil alamin waaye noonu itam ni lañu songewaat yeneeni xeeti jaamu yàlla yoo xamante ni itam du deñ di àddu moom di jëmale ci julliti ci képp koo xamante ni rek seede nga ne yàlla mooy yàlla waaye tam seede ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko yónni mi shahaadatu an laa ilaha illallah waaye wa anna muhammadan rasulullah waaye ànd ak loolu salaat ànd ak loolu itaa zakat waaye ànd ak loolu sawmu ramadan waaye ànd ak baytullah alxaram li man istataa ilayhi sabila nga ne ponk la yoo xam ne islaam bu doonoon mbaar ñu ne juróomi kaña yooyu ñoo ko yenu naa bi nga seedee ne yàlla yàlla ku dul yàlla du yàlla seede ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, yàlla moo koy yónni waaye di taxawal julli waaye ca namu ware ca mbooloo yaag ya ca xew yépp waaye itam génne asaka bu fekk ni bii am nga lu mat ni nisaab loo xam ne lii warees na koo génne fa tabaarakallaahu nga génne ko waaye itam woor weeru koor comme ni nga xamante ni noonu lañu ko defe ba génn ci ak alhamdulillahi rabbil alamin waaye itam noonu itam ci lañuy ñuy indi li ñuy xaj baytullah alxaram ñi koy tuddee xaj màkka moom itam bu fekkee man nga ko te attan ci sa dund fa tabaarakallaahu nga def ko ci benn yoon benn yoon ba moo di farata waaye baneen bu ca toppaat rekk dafay doon loo xamante ni naawafil lañ koy tudde ndax ginnaaw farata la te doonatul force kon lii force bi daal benn yoon la ci sëg dund foofu wali sëg julli ndax tey julli bu fekk ni bi waxtu yu jot na muy suba gi ñu julli jóge nga julli ko loola dafay doon farata tabaarakallah waaye itam farata boobu muy jullik fajaruk tey wàcc na la ndax joxe nga ko waaye feek defoo ko nag dafay doon bor boo xam ne danga ko war a fay naka noonu tisbaar gi ñu dëgmal moom itam noonu tàkkusaan noonu timis ba ci geewe yooyu yëpp benn bu mu ci mën a doon rekk ala kulli xaal danga koy def ca namu mu ware boo ko defulee fay dala ci dal di war waaye tam manoo yam ci benn bi rek ne koom julli naa démb rekk <coughs> tey duma julli damay noppalu déedéet walla julli naa sama dund benn yoon yeneen yi ci des <coughs> damay noppalu déedéet kooku julli du ko def moom danga koy def rekk waxtu ya ñu ko waxtul muy juróom yooya saabu ca waxtu wa jotee nga def ko ca loola dafay doon farata ci jullit bi walis ak aj màkka bi nga xam ne benn yoon la ci mooy farata bi waaye yeneen yu ci topp rek sunna la waaye coobarewu la rek koy tuddee ba ci ngëneen waaye doonatul farata boo xam ne bu dee danga nga koo mën a def lànk bañ koo def tax ñi la ciy bindal bàkkaar loola amu ci ko defee <coughs> noonu itam eh, benn bu ci nekk rekk bu jotee islaam day ñëw taxaw di fàttali doomu aadama yi rawatina nag ah, ñi nga xamante ne fas yéene nañu dem def xaj baytullah al xaraam mu leer na ne kera bi weer wi teroo muy weeru zawaal wi ñu nekk rek daldi nañ ubbi bunt bi nga xamante ne moo di buntu xaj màkka bu ko defee képp koo xamante ni nisër nga ci fas yéene nga ca mottali sa ponk booba ah nga jéem a taxaw rekk comme ni la ko sariya tëralale ci wàllu taxawaay yi ci wàllu préparé na ngay def ca bala ngay dem xam lu ca farata ya lu cay farata waaye xam lu ci itam lan moo ciy sunna waaye tam xam lu ca lan moo ciy ngëneen ak la cay xaraam ak ya koy yàq yooyu yépp dana yellu ci doomu aadama mi mu jéem koo xam jéem cee def kemtalaay kartam ba lu xamul woon mu jéem koo xam lu ji ndax rek jaaduwul doomu aadama bi di ko def comme ni ko nit ñi di defe rek muy doon ma réerandoo rekk loolu kenn ku ci nekk war na koo moytandiku ba jaamu yàlla goo toll rek buñ la laajee lii lu mu doon di nga xam lu mu doon ci wàllu diine ji bu dee farata di nga ko xam <coughs> bu dee sunna di nga xam loola moom lañu ñu sàkku ci bépp doomu aadama bu mu mën a doon bu nekk waaye bu fekkee danga koo def rekk comme ni ko nit ñi di defe walla dama gis ñu koy defe nii rekk ma àndandoo ci ak ñoom nee nañu loola baaxul jaamu yàlla googu itam ah, neen lay doon kon bu ko defee kenn ku ci nekk rek nga jéem a xam lu ji farata ya dafay am solo tax góor gu baax ga doon ñu ko wax ca téeréem bu tedd boobu muy awwalu maa yajibu alal mukallafi waaw ah, li njëkk a war si kallaf ñu ne ko ah moom lañ bëgg a xam mu ne ko mooy tasxiixu yi mooy fexe rek mu wéral ngëmam waaw ñu ne ko waaw bu wéralee ngëmam ba pare walla yan yoon lay jaar ba ngëmam googu mën a wér mu ne summa maarifatu maa yuslihu bihi topp nag mu dem xamlu ji lépp loo xam ne da koy yéwénal waaw lan moo koy yéwénal na mu ne farda aynihi faratay jëmmam ñu ne ko faratay jëmm mooy lan mu ne farata bi nga xamante ni kenn du la ko mën a defal ku dul yow sa bopp yaa ko mën a def farata boobu wàcc la waaye mënoon koo joxe ñi la koy defal ñi ne ko waa teeg ñi ci andil misaal boog ndax ñi xam ko ndax fardu ayn dinañ ko fi dégg ak ak fardu kifaaya yu mel ni ki yooyu yoo xam ne léeg-léeg sax doomu aadama mooy ñëw taxawe ko mu wàcc la fa tabaarakallah mu ne waaye fardu ayni bi nga xam ne nag moom kenn du la ko defal ku dul sa bopp ci la ci indi misaal nekk ahkaami salaati niki àttey julli yow jullit bi rek yow yaa ko mën a defal sa bopp waaw moo tax mu leeral ko noonu ni ko ahkaami salaat ni ki àttee julleem nga fexe ba yow mboolem lu làmb ci julli rek nga jéem koo def na mu ware fa tabaarakallaahu loolu lu ci am solo waaw ahkaami salaati waaye naka noonu wa tahaarati fexe ba sa àttey laab la ca war lépp nga jéema fexe ba def ko ba mu mat sëkk ndax boo tuddee julli rek danga tudd laab ndax moo ko jiitu mënoo tëb tëb ñëw ne da ngay julli te amoo laab moo xam laab ci xadas baak xabas yooyu yépp eh, yu ci am solo la nga xam ko te ndekete laab googu itam manoo basé wu ci rek ne masamba laab na comme moom laab na te mën tilim naa baax na ak laaba mën na maa yóbbaale déedéet mënulaa yóbbaale kon yow il faut da ngay laabal sa bopp kon yaa ko mën a defal sa bopp moo tax mu indi ci eh, taxaaratu yu ci mel ni laab waaye na ko noonu was siyaam yu ci mel ni koor moom itam man nga ko ah, xam nga ko ni koy defee dana la war fekk defoo ko du la wàcc waaye doona rek kon ma sàmb woor na besam mën na ma yóbbaale déedéet doonul fardu kon ayn waaye fardu hayni bi muy doon moo waral Masamba day woor wooram yow itam nga woor sa woor kaneen woor wooram kon gisoo gisee ñett yi da ko sippi ci yooyu rek ngir doomu aadama bi mën a xam waaye ëpp na loolu yoo xamante ni kenn du la ko mën a defal ku dul sa bopp lu ci mel ni nga am asaka lu mat a génne nisaab waaw nga ne comme diw moom génne na rek baax na mën na ma basé wu ci asakaam bi mu génne loolu islaam du ko nangu waaw donte li nga yor néew na waaw mais mat na nisaab bu ñu war a mën a génne asak nga ne diw mii kat <clears throat> moom génn na ndax yor na ay million wala yor na ay milliards man nag li ma yor ci ci ci ci deux millions rek lay lay lay toll te diw moom génn ne milliard génn ci asak kon naa basé woo ci besam boobu yàlla ne déedéet diw moomu besam boobu moom la ñeel waaw yow itam sa bés bi it yow la ñeel génnewoo ko ak lamu néew néew néew du sell waaw kon génne la mu tollal nga jéem koo jël joxe ko ci wàllu azaka waaw ak yeneen ak yu mel ni ki yooyu fekk ni bii nag euh, matul ni saab bu wara tax ñi génne ko ah bu boobaa ah, nga daldi bàyyi ba keramu mu koy mat comme ni ko sariya tërale rek waaye fuqaha yi itam andil ñu ko séparal ñu ko ci wàllu yépp moo xam ba ci jur gaag euh, mbay maak yépp yañ ca war a génneeg yuñ ci war a génneeg ak bu àggee ci temps lañ ko war a génne yooyu yépp macha allahu borom fuqaha yi leeralal nañu ko ci biir kon bu ko defee doomu aadama bi jéem cee bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax loolu lu ci ama ama am solo la kon bu ko defee ah, weer waa noonu ñu jéem ci góor góorlu rek waaw ah, jéem fexe njub waaye jéem a fexe def sa kemtalaay kartan yi jikko yu ñaaw yi nga xamante ni ah moom la yenent bi waxoon ne képp ku nar a dem xaj ji màkk jikko yu ñaaw yooyu sax dafa araam ci jaam bi di ko def di ko jikkowoo war na ko gaaw dindi bala mu cay àgg fa tabaarakallah kon jikko yu ñaaw yooyu bari na lool lool lool waaw kon bu mu ci mën a doon rek nga fexe jéema faxas ko ba mu deñ ci yow loolu lu ca am solo am solo la waaw moo xam jëw fekkoon rambaaj wala jël alali jirim ne danga koy aji ji màkkaak yu mel ni ki yooyu ah, wala jël alali loolu ñuy tudde góor jigéen ne da dem aji ji màkka ngir mu man koo raxas déedéet loolu du ko raxas waaw du tax loolu set waaw maanaam lu araam mënoo koo jël dem ne da ciy xaj màkka nee na boo yent bi nee na boo jëlee dajale lu araam dem taxaw naan labbayk allahumma labbayk waaw di di def say talbiya waaw yàlla wuyu si naa la di jabatu nee dañuy yabal benn kàddu mooy àddu naan laan laa labbayka wala sadayk waaw wa hajjuka haza mardudun aleyk waaw yow mi woote naan wuyu si naa la yàlla danaan laan déedéet man koy soxlawuma la kaaba gi taxaw ne la may itam soxlawuma la waa yow moom texewoo waaw li nga fi yor ba indi ñëw fii delluwaatal ak noonu ak sab coon waaw ndax sa aj gi dañ la koy delloo lan moo koy firnde li nga dajale dafa araam kon lu araam kenn du ko jël ne danga ciy dem aj gi ci màkk bari na donte la si pénc mi sax ñoo xamante ne seenug dem loolu lañ ca bëgg muy ditor ñu ay kees yoo xamante ne ne buñ ci demee aj ci màkka man na ko raxas déedéet loolu du tax mu mu alal ja mën a set ca bàkkaar ba déedéet ak yeneen ak yeneen kon képp kuy dem nga fexe ba la ngay aje mu doon loo xamante ne lu lew lay doon loo xam ne yaa ko def ñaqal ko sa bopp walla boog ñi ñaqal la ko waaye mu tegu rek ci kaw condition ci yoonu siraatal mustaqim loo xam ne daal doonul ci lu araam waaye ku dajale lu araam dem boo àggee itam noonu lañ la koy delloowaate kom noonu nga doon jullee te mataloo say julli la cay wàllu làpp mataloo ko la cay eh, farata ya mataloo ko sunna ya noona ba ca ngëneen la yépp nga ñëw këlëf këlëfal ko teg julli googu moom itam dañ koy taxañ baxañ ko jëlaat ko sànni la ko bu boobaa nag moom mooy taxaw moom julli googu nga julli sabantal ko mu moolu la yàlla waaw ne allahuma yàlla yow yàlla maa ngi lay ñaan diw mii ma sabantal nii ba tax na ñi jël ma sànni ma nii yàlla nanga ko sànk réeral ko comme ni ma sànke ni ma réeral waaw ni ma doyadale nii yàlla nanga ko sànke noonu doyadale ko noonu réerale ko noonu fa tabaarakallah te ñoom xam nga seen ñaan ah, yàlla daf koy nangu waaw daf koy nangu waaw bu fekki ni bii nag respecte nga ko muy la ca war ca wàllu laab ga nga def ko ba mu mat sëkk sol yére yu rafet ya noonu waaw ca waxtu wa jot na nga def ko népp macha allahu na mu ware yooya boo ko defee respecté ko bu boobaa buñ paree dañuy jël julli googu xool ko vérifié ko ne bii kat baax na comme baax na nag ñu jël ko escorté ko tàmbali ko di ko teral moom julli moomu malaa yi jël ko bu fekkoon luy dox la jël ko tungóob ko ci misaal ne ko yow moom xam ma kuy laal suuf waaye yow doo laal suuf nangam ak nangam teraal ko yooyu teral googu ñu koy teral nag moom moom julli dafay mujj kontaan ba ñaanal la yàlla ne yàlla daal sama waa ji nga xam ne moo ma julli nii ba tax na ku ma gis teral ma nii ormaale ma nii ba yëkkati ma ba ma suuf yàlla kii daal yàlla na ko wattu comme ni ma wattoo kon gis nga ñaar yooyu ñaari ñaan yooyu bokkuñ ndax bee moom danga ko doyadil ba teg ko na ko sudul noonu moo tax gis nga la mu la ñaanal yàlla muy rek ni nga ko doyadile yàlla doyadil la noonu waaye tey jii bi nga taxawee nag respecté ko defar ko ba mu rafet moom dafa taxaw ñaanal la yàlla comme ni nga xamante ne noonu nga ko respecté taxawu ko ba mu rafet kon yooyu yëpp kenn ku ci nekk jéem see bàyyi xel ba jéema di def waaye itam rawatina itam di sellal rawatina si jaamu yàlla gi ndax kado bu mu ci mën a doon su ñun ñi képp ku mu ci mën a doon ci ci ñun rek la ngay am fonk ko rafetal ko bu fekk ni bii dañ la ko sant moo xam sa président la walla sa sëriñ la noonu ngay am mbégte fexe moom mu jot caloola loola kontaan sabab yay tax mu kontaan nanu nga koy préparer yow jullit bi li jëm ci sa borom noonu itam ni nga ko war a préparer bañ koo préparer ci loo xamante ne mooy lu araam walla yoo xamante ne jikko yu ñaaw la ci mel ni xeex ak xuloog yu ci mel ni yooyu moo tax mu naan fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fil xaj comme ni ko alxuraan leerale Yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom itam andil ñu ko leeralal ko képp koo xamante ne rek nar nga ko nga jéem a fexe ba jikko yu ñaaw yooyu nga jéem koo moytandiku bàyyi ko donte la araamoon na avant ba nga koy bëgg a def sax waaye rawatina nag bi nga ñëwee bëgg a jël sóobu ci ngir def ko nag ngir rek nga bañ a am coono li ñuy tudde haba am mansuuran muy jëf joo xam ne lu ci mel ni euh, poussière boo jël <laughs> wala sunguf soo jël dem ba ca digg montagne ba nga taxaw di ko fa jëri loolu yaakaar naa ne loo fa teg rek ngelaw lu bu dikkee du fa bàyyi dara kon jëf ji nga xamante ne danga koy jëf te sellul noonu la mel kon kenn ku ci nekk jéem a sellal lépp looy def rek incha sell gi moo ca am solo doonte la néew na bu dee benn ñaar sax te sell moo gënal yàlla nga def téeméer yoo xamante ne juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent dara sellu ci waaw kii moom ñetti am yi mu am mu néew néew waaye sellal na ko moo gënal yàlla fa tabaarakallah kon bari gi amu ci solo néew gi itam jëru ciy xeeb la ci am solo rek mooy fexe rek fa tabaarakallahu mu sell moo tax yonent bi waxoon na ko ne boo defee bàkkaar ak lu mu tuuti tuuti nee na bul xool bàkkaar bi ne dafa tuuti ba moo tax jégguluwuma ko walla boog moo tax euh, dinaa ko jéggulu bu dee yiw wi itam kazaalika moom it lu mu bari bari bari bul ci baasewu rekk rek moom ci loolu rekk laay yem ndax xamoo ba xam euh, yiw wu bari woowu nga def yàlla nangul na la ko wala déet mais yiwu ndaw wi ngay xeeb xamoo ba xam ci la yàlla def sa affaire baax wala déet xamoo ko kon booleel ñaar yëpp muy bu baax ba ak bu néew ba bari baax bari bari baax néew booleel yépp ndax xamoo ban la ci yàlla nangu bu dee bàkkaar ba itam bu bu ngand ba itam bul na rekk moom rekk laa jéggul bu dee bu ndaw bi garawul ndax dafa tuuti nee na wóorul ndax xamoo ba xam bu tuuti bii ci la la yàlla xoole bëtu een mere la ci walla déet te bu bu mag bee ngay def mën naa mën na la cee xool bëtu yërmandeem ba la kon xamoo ban buntu la la ciy xoole moo tax bu mu ci mën a doon rek bu dee lu baax bul xeeb waaye bu dee lu bon itam bul xeeb nga jéggulu yépp kon bu ko defee ñi bàyyi ci xel bu baax mbokk mi mu ngi xamal ni ah, li ñu amee woon ci waxtu wi daanaka mat na fa tabaarakallaahu kon du ñu def rek lu muy tënk ko foofu seen émission at tazkira fa tabaarakallah di ñaan yàlla rek ci ay bis wi dellu di ñaan rek fekk ak tal lépp loo xamante ne àddu nañ ko rek yàlla ñu ko yàlla defal suñu balaa si jëf lu ciy digle yàlla dimbali ñu ba ñu jiitu ca waaye ku ñëw fekk ñu ci ku dem bàyyi ñu ci lépp loo xam ne lu ciy tere itam yal nañu yàlla dimbali ba kenn duñu ci fekk incha allahu di leen ko ñaanal di ko ñaanal suñu bopp suñu waay daw li yàlla na leen yàlla yërëm taal ñu ci seen barke tënk ñi ci ak njub ba kere ñu leen di fekk si fa tabaarakallah way itte yeeg way aajo yi way feebar yi su hôpital yi ñi koy wéyaale yal na yàlla saafara ñu saafara leen way tukki yi si géej géej jéeri jéeg jaww ji yàlla na yàlla delloo si leen ak jàmm ci seen njaboot ci daraja yeneen bi alayhi salaatu wassalaam du nuyu ñëpp alxaaji Xasan Fall ca Daaru Ture ñu ngi koy nuyu alxaaji Ceem alxaaji Njaay ca Cees moom itam ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di leen tatagal alxaaji Abdal Aziz Njaay moom itam ca Cees ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal bisam boobu nga xamante ne mooy jublu si dëgmal yàlla nañu yàlla may fekkeek tar rek muy la cinq ca fa mu ko daan defee ca kees incha allahu yàlla fekkeloo ñu ko ba mu jaar fa mu daan jaar comme noonu nga xamante ne noonu lañu ko daan defee di jéggulu ñëpp in uridu ila al islaha mastatat wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu